alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat wa tubaaraku lxarakaat wa tudoafu lxasanaat summa salaatu bi akmaliha maa salaami bi atamihi ala ashrafi xalqihi wa akrami rusulih sayidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaa'ihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn leerak ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen di boole ci juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow. ci wàllu sëy démb ma nekkoon ak yow ci fukki jigéen ak juróom-ñaar yi la xaraam yow góor gi jóg ngir war a takki soxna yenn ya dañ laa xaraam ngir ak askan muy jege ñaale ci wàllu meen wala ci gaño yenn ya xaraam la ngir nàmpaale yenn ya xaraam la ngir gorowaale yenn ya xaraam la ngir sababu diine lu mel ni jabari jàmbur lu mel ni musrikatu lu mel ni ku yeddawuta liggéeyam jeexagut ak ñu mel noona ñëpp farañ fànce woon na la ko démb ma digaloon la nag danaa wax ak yow jigéen ñi nga xamee na ni takk leen xaraam na lool ci aada ñaaw na lool ci aada te rafet lool ci sharia dara nekkut ci ma waxoon la nag bi may daane ne daal booy ñaawlu ñaawlu lu sariya ñaawlu waaye lu sariya ñaawlu wut bu aada ñaawloo tamit ñun topp lu ñu aada mais sariya la ñu toppaloo wa tabix sabila man anaba ilaya su ko defee kon fukki jigéen ak ñaar la xaram nañ lool ci aada te dagan nañ ci sharia ku leen takkoon ci aada bu la nit ñi mbambe soo moytu du la jik moo xam yaa ngi ko takkee ca jolof bu la waa jolof yi euh, mbambee du la jik wala nga takkee ko ca kajoor bu la waa kajoor yi euh, mbambee du la jik wala nga takkee ko ca fuuta buñ la mbambee du la jik rawatina nag ca saalum soo fa takkee fukki jigéen ak ñaar ñile dagan lool ci sharia ñaaw lool ci aada ñi xamut danañ la mbambu mbambu moo xam ne boo amul sens du la jig bi ci njëkk ca fukk ak ñaar yooya mooy doomi sa jëkkëru yaay moo xam doomi sa jëkkëru yaay jooja ci askan la mbaa ci nàmpaale ñaaw na ci aada de waaye dara nekkut ci sharia loolu ki muy dal mooy ñaareel da doon yaayam dafa doon sëy am ko ca bam ko ca amee baayam génn àdduna wala sax baayam génn àdduna mais yaayam dafa teqali ko papaam ganeen góor ñëw takk pa eh, soxna yaayam góor googa nag ma ngay denc yaayam waaye moom mii mi ngi denc doomi jëkkëru yaayam sa jëkkëru yaay mi ngi denc sa yaay waaye yow mii yaa ngay denc doomam ñi xamul charia boo ko defoon dañuy wax na ñii daal dañoo weccoo rek dafa may yaayam jëkkëram jile jëkkëram jile may ko doomam ji ñi mbambu la te fekk charia félicité na la ci li nga def dara nekkut ca kooku mooy bintu zawji ummika doomi jigéeni sa jëkkër yaay moom nga denci sa yaaya ngi nii jëkkër ma ngi koy denc waaye yow mii yaa ngi denc sa doomi jëkkëru yaay moo xam doom jooja soqee ko ci sa jëkkër yaay jile ci askan la wala ci nampaale la dara nekkut ci ñaaw na ci aada waaye dara nekkut ci sharia ñaareel bi mooy jabaru sa jëkkëru yaay sa yaay mii doon sëy ak sa pappa sa papa génn àdduna mbaa mu fase ko jeneen góor ñëw takk ko kooka takk ko nag ba muy takk sa yaay da koo takkaale keneen muy wujjeeg moom moo xam sa yaay ko fekk si wala moom moo fekk sa yaay jamono dem bam mu fase kooka kooka jàpp yedda ba mu jeex yow nag nga takk kooka noona doon sa jabar yi jëkkëru yaay moom mi ngi denc sa yaay waaye yow mi yaa ngay denc jabaram jum teqali kook ñaaw na ci aada de waaye dara nekku ci sharia kooku mooy zawjatu zawji ummika moo xam nag ci ndàmpaale la moo xam ci askan la ndax jàmbur la ci yow dara nekkul ci ñetteel bi mooy takk sa yaayu sa sa yaayu jëkkëru yaay sa yaayu jëkkëru yaay sa yaay mele jëkkëram ji koy denc doonnoo ko ki sa baay ci waxin wala gannaaw bi ko sa baay fasee la ko takk gannaaw ba yeddam ja jeexee moom mi ngi denc sa yaay de waaye yow mii yaa ngi denc yaayam dara nekkut ci su ko defoon nag tabaarakallaahu saalum buñ la mbambee boo moytu du la jik dañuy wax ne ah moom de góor gi mi ngi denc yaayam waaye nii muy dencee yaayam moom mii tamit doom ji noonu lay dencee yaayi jëkkër yaayam waaye dara nekkul ci ab jàmbur la ñaaw na ci aada waaye dara nekkul ci sharia ñeenteel bi mooy doomi sa jëkkëru doom doomi sa jëkkëru doom sa doom bu jigéen bile jëkkër jing ko may mu koy denc ji ko njegeenaayoo ma ngi koy denc de waaye yow mii tamit yaa ngi denc doomam dara nekkut ci mooy bintu zawji bintika sa doom ju jigéen ji góor ga koy njegenaayoo yow tamit yaa ngi njegenaayoo doomam yaay denc doomam moom muy denc sa doom dara nekkut ci moo kam doom jooja dafa soqee ko ci nàmpaale wala ci askan jàmbur la ci yow doo ca dara juróomeel ba mooy denc yaayu sa jabaru baay sa baay mii dafa yore ay soxna ñii wujjee ak sa yaay ci biir soxna yooya muy denc ah, sa doom jile kon sa doom jile ah, sa doom ji yow nga am jabaram yaayam ngay denc sa doom ji de sa doom ju góor dafa am soxna sum takk bam ko takkee ma mu nekk di jabaram yow nga jàllar bi ku dem takk yaayam moom lima ma bëgg a wax xaw ma xaw ko dafa xaw a lëj yow góor gi may déglu am nga doom ju góor mu dem takk soxna genn góoru siise siise moo ko may soxna su tudd faatu siise ma ngi koy denc yow tamit nga jàllal bi ku dem yow mii di baayam takk yaayu faatu siise mii sa doom ji di denc kooku mooy ummu sawjati ibnika waaw waaw moom daal may nga ko euh, euh, sa jabar ji ñi may ko mu koy denc moom ma ngay denc sa doom ji jabar ja muy denc daal yow yaa ngay denc yaayam mi ngi mel ni daal moom moo takk doom ja yow nga dem takk yaay ja loolu moo la gën a jege euh, sa sa doom ji góor ji ka muy denc yow moom moom ka muy denc doomam la doom la yow nga dem takk yaayam mooy takk doom ja yow nga dem takk yaay ja dara nekku ci ñaaw na ci aada dañuy wax ne ah waaye lii nu mën a amee moom mi ngi takk doom ji doom jaa nga takk doom ji moom mi di bàyyi ja dem takk yaay ja li kon loolu la ñuy wax dara nekkul ci ñaaw na ci aada waaye ñaawut ci eh, diine eh, moo xam doom ja ca moo xam maanaam eh, yaay jooja ca nampale la wala ci yaay ju ko jur xaqiqatan la dara nekkul ci juróom-benneel ba nag tabaarakallaahu mooy denc doomi sa jabaru doom sa jabar sa doom ju góor jile jabar ja yow denc too yaaje de mais doom ja nga denc sa doom jaa ngi denc jabar joo xam ne yow mi yaay njege naa yoo doom ja waaye doom ja nag soqee ku ki sa jabar ji de jeneen doom faneen la ko amee bintu sawjati ibnika doomu jigéeni sa jabari doom moom ngay denci doomu jigéen ñi sa jabari doom moom ngay denc sa doom ji daal ka muy njegenaayoo muy jabaram doomam jum amoon njëkk sa doom di ko njegenaayoo moom ngay denc dara nekku ci comme ni nga njegenaayoo woon yaayam juróom-ñaareel ba mooy denc yaayu sa jabari baay moo gën a garaaw ci aada sa baay mii am na ay soxna ñett lañ ñeent lañ léegi nag mi ngi denc soxna soo xam ne moom sa baay yow mi yaa ngi denc yaayi soxna sa sa baay ngi denc soxna si de waaye soxna sa muy denc muy ñaareelam lamba wala muy ñetteelam lamba mbaa muy ñeenteelam ba fekk yow sa yaay mooy aawo ba wala sax sa yaay mooy ñaareel ba yow daal euh, ñetti soxna yam am ka ca nekkut euh, ka ca nekkut sa yaay ya ca nekkut sa yaay yaa ngay denc yaayam sa baay a ngi denc doom ja yow mii di doom ja yaa ngay denc yaay ja xam naa fa mel ni daal yow ki ngay denc moo mag sa jabari baay ji nda ki jur sa jabari baay moom ngay denc mooy ummu sawjati abika moo xam yaay ja ca yaayu nampale la moo xam yaay ja ca yaayu askan la dara nekkut ci juróom-ñetteel ba nag mooy denc jabaru sa doomi jabar sa jabar jile sa doom jile tabaarakallaahu jabaram ji muy denci yow dencoon nga jabaram bu ko fa ko fase woon fa jabar fase ko nga takk ko Muhammad jeneen jabar moom nag ma ngay denc mais yow yaa ngay denci timit jabaram jum fase woon sawjati ibni sawjatika maanaam jabari sa doomi jabar bokkul ak boobu kon jabari sa doomi jabar ngay denc jabari sa doomu jabar moom ngay denc sawjatu ibni sawjatika yaa ngi denc jabari sa doomu jabar moo xam ci nampale la moo xam ci askan la dara nekkut ca juróom-ñeenteel ba yaa ngi denc mbokkam sa mbokk ci wàllu baay ca wàllu yaayam ja kii ngay denc daal mbokku sa mbokk la ki sa wàllu baay ca wàllu yaayam moo xam ci wàllu nampaale leen mbaa ci askan dara nekkut ca fukkeel ba mooy yaa ngi denc kooku ma wax la sànq mooy uxtu uxtika li abika li ummihi nasaban dara nekkut ci mën nga ko denc dara nekkut ci naka noonu tamit mbaa ngay denc mbokkam sa mbokk mu góor ci sa wàllu yaay ci wàllu baayam uxtu aqiika li ummika li abihi nasaban foofu nag daa bokkut ca dara nekkut ci fukkeel bak benn mooy mbokkam nàmpaale ci sa mbokk mi benn jigéeni jàmbur moom moo nàmpal sa mbokk mile kam nàmpandoor ak nag yow nga dem takk ko doo ca dara jàmbur la dara nekkut ci mooy uxtu axiika ah, su ko defee min radaa kooku dara nekkul ca fekk min imratin ajnabiyatin min tukkee ko jigéen joo xam ne jigéeni jàmbur la kooka dara nekkul ca ah, kooku dara nekkul ca ah, ba ca tegu wax naa la ko mooy fukkeel baak ñaar mooy sa mbokkam nampaale mile uxtuka min daa sa mbokk mi ci nampaale ah jàmbur la ci moom doo doo dara nekkut ca yow miñ koy yow mii nga xam ne yéen a bokk kay nàmp yéen ñaar du ma mën a dencante waaye nag ki bokk ak yow nag mën naa ñëw ñu de denc ko buy jigéen tamit mën na mën na ñëw denc ko buy góor mën na ñëw kee denc ko dara nekkut ca kooku ab jàmbur la ca min rada kooku xam nga ne kon laa tahrumu ala aqiqa kooku mën ta xaraam sa mbokk mi ci askan dara nekkut ci yooyu ma wax la imaamu nafarawiyu moo koy setti ci fukk ak jigéen ak ñaar yoo xam ne dagan nañ ci denc leen mu ñaaw lool ci aada te rafet lool ci askan dara nekku ci mu ñaaw lool ci aada te rafet lool ci sharia dara nekkut ci denc leen dara nekkut ci su ko defee démb junjoon naa la timit ne ba yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne dana xaraam ci nàmpu ci askan lu xaraam ci nàmpu dana xaraam ci nàmpu lu xaraam ci askan ulamaawu mazhab bi di mazhabu maliki yi am na yuñ ca setti ndax yon dafa noon yaxrumu min radaa'i maa yaxrumu min nasab loolu la yonent bi wax sallallahu waaye boroom xam-xam ya setti nañ ca yii ma bëgg laa limal mu xaraam lool ci askan te dagan lool ci nàmpaale mooy yaay ki nàmpal sa doom ji yaay ki nàmpal sa doom ji yow nga dem takk ko jàmbur nga ci dara nekkut ca mooy ummu murdiati wala dika xam nga loola bu fekkoon ne ci askan la dëgg-dëgg nag dafa xaraam ndax maam lay doon waawaaw bu fekkoon ne ci xara ci askan la sa maam lay doon nit ki man takk maamam ju jigéen ah, waaye nag su fekkee ci nàmp la dara nekkut ci nga dem takki yaayi ki nàmpal sa doom ji dara nekkut ci laa taxrumu alayka walaw kaanat jaddatuhu min an nasab la xarumat alayka li annaha imma ummu zawjatika aw ummu amatika aw ummu mawtu ati euh, kon loolu lay mën a doon abika su fekkee ne woon ci askan la kenn lu mën a doon dafay mën a nekk di yaayi sa jabar wala mu nekk di yaayi sa jéebéer walla muy yaayi koo xam ne nii jotee ngañ jotee nañ sa sa sa waajur jotee na moom ñaareel bi tamit doomu doomu jigéen ñi ki nàmpal sa doom doomu ndigli doomam ju jigéen jeew nga dem takk ko dara nekkut ci bintu murdiati wala di sulbika xam nga ne kooka mbokkam la ci nàmpaale waaye nag euh, ci wàllu ci wàllu ci wàllu radaa bi mbokk la ca waaye nag buy ci askan bu doon ci askan dafay xaraam ndax bu doon ci askan day nekk mbokkam sa doom ji ci askan takan mbokkam sa doom ji nag ci askan ah sa doom la mën a doon yow bàyyi ji may déglu wala muy doomi koo xam ne ni yow yaa ko yar imma bintuka aw muy rabibatuka te batu boo xam ne nag kas ga jote yaay ja fa lay xaraam al daxaltum bihinna fa lam takunu fa lam takunu daxaltum bihinna falaa junaaha aleykum ñetteel bi mooy ki nàmpal sa mbokk mu góor mbaa mu nàmpal sa mbokk mu jigéen moo xam mbokk mooma dafa bokk ak yow ci wàllu baay mbaa mu bokkak ak yow ci wàllu yaay mbaa mu bokk moom ci ñaari wàll yooyu yëpp buy ci wàllu nàmpaale dara nekkul ci buy ci askan nag xaraam na ndax li konoon sa yaay lay doon wala muy koo xam ne sa baay moo joteeg moom ñeenteel ba mooy ki nàmpal sa doomi doom muy sa sët sa sët bi ki ko nàmpal yow mën nga koo takk yaay jooja joteewut ak yow dara waaye nag su fekkoon ne ci askan la dafay xaraam ndax kon dafay nekk di sa doomi ndigg wala muy sa doo sa jabari doom yooyu yëpp kon dafay xaraam la xaruma alayka li anna imma bintu sulbika aw zawjati ibnika ñeenti yooyu ma wax la yëpp la shaacir ba boole waaye ne arbaun hunna fi radaaci xalaalu wa ida ma nasabtahunna xaraamu jaddatimnin wa uxtuhu suma ummu li aqiihi wa xaafidun wa salaamu yii mooy yoo xam ne nii dagan na ci askan dagan na ci kon nàmpaale taxaraam lool ci askan boroom xam-xam ya dolli xaat nañ ca juróom yoo xam ne dana dagan ci nàmpaale taxaraam ci askan bi ci njëkk sa baay tëx mile yaayi nàmpaaleem man nga koo takk dara nekkut ca dara nekkut ca waaye bu doon ci askan dafay xaraam ndax bu doon ci askan sa maam lay mën a doon wala muy koo xam ne sa maam jotee nag moom sa bàjjen bile yaayi nàmpaaleem mën nga koo takk dara nekkut ci waaye bu doon ci askan dafay xaraam sa maam lay doon wala muy sa jabar yi maam sa nijaay jile yaayi nàmpaale mooy yaaye ji nàmpal sa nijaay mën nga koo takk dara nekkut ci waaye nag bu doon ci askan dafay xaraam ndax sa yaayi nijaay lay doon jile jigéen gi ko nàmpal mën nga koo takk waaye bu doon ci askan dafay xaraam ndax li ko noon sa yaayu tànta lay doon yooyu yëpp xaraam na ci askan juróomeel ba mooy mbokku mbokki doomi jigéen gi mbokku doomu jigéen gi ci nàmpaale dagan na ak sëyam dara nekkut ci mi ngi mel ni daal jigéen goo xam ne dafa am doom doom ja nàmp ci ab jàmbur jàmbur booba am doom ñoom ñaar ñooña ay mbokk lañ soo ko seetee ci nàmpaale waaye dara nekkul ci ñoom ñi takkante bu doon ci askan nag dafay xaraam mi ngi mel ni ma ne la imraatun laha ibnun irtadaa min ajnabiyatin laha laha ibnun fa huma axawaani fi waaye wala yaxrumu ala tilka mar'ati an tatazawaja ala dhalika ibni dara nekkul ca alladi huwa axu waladiha min radaa kon wax naa la kon fukki jigéen ak ñaar yoo xamee na ni takk leen ñaaw na ci aada waaye daga na ci sharia dara nekkut ci ku ko def nag danañ la mbambu boo moytuwul sax boo yaawut bopp mbambu ma dula la jig waaye aada lum ñaaw lu suñ yónnewu ci li jara daw daal jara teet mooy lu sharia ñaawlu wax naa la timit tabaarakallaahu juróom-ñeent jigéen yi boroom xam yi setti nga xam ne buy ci askan xaraam na buy ci nàmpaale dara nekkul ci nga takk leen wax naa la ko kon nag yii mooy ma la dëhaloon démb xawoon la koo junji ne danaa ci yegg si tey may bàyyeekoo nag ci loolu di wax ak yow daal ci wàllu nàmp nañ ci bàyyi xel bul téye sa ween wile mu am soow ku la neex nga jox ko mën naa di problème ëllëg ki nga ko jox boole koo koo xamee ne ni mënoon nañoo takkante buñ màggee nampu ga am ñu ñàkk a xamante sëy booba ñi maye leen kenn xamu ca dara xam nga ne loola garaaw na wala ñi maye leen ba ñu xam doom ñu door di ko xam di tas diggante ba loola tamit nekk na loo xam ne lu doy doy doy waar la kon nampal daal bala nga koo def ci doomi jàmbur na fekk daruratu waral ko a tu addaruuraat tubixul maxduuraat mooy doo kii ngay nàmpal yaay ja amul soow te yow sa soow mi bëri na ba ëpp sa doom ji nga bëgg cee sédd nag ndeysaanam euh, doomi jàmbur ji jàppee ko muy sa doom wala kay yaayam a génn àdduna sax nga ne ko naa ko nàmpal kooku daruureetu la su kon loola dara nekkut ci daruureetu googu dana tax maanaam mu dagan waaye nag yaa ngi yore Eh, sa soow mi ku la neex nga jox ko ci kër gi nga xam ne yaa ngi fay sëy ak nangam ak nangam ak ñi nga dend ak ci koñ bi wala ci quartier bi wala seen kër ya jàkkaarloo rawatina ci àll bi lay gën di am yooyu mën naa andi ay conséquences yoo xam ne fa mu ñuy yóbbu duñ ko mën a xam kon nit ki day jël matukaayam balaa dara xew loola moo ko ci mën a musal su ko defee rek yàlla mën na koo dimbale ci lu bëree bëree bëree bëree bëri waaye ku dul xool ëllëg lu ñëw rekk mën na laa bett waaye fogoru dafa bokk ci jumtukaayu mag ñi mosuñ koo foyee dañuy bàyyi xel lu ñëwagut ñu cey nattee li teew li nga xam ne ñëw na ba pare kon nag wax naa la jigéen ñi nga xam ne tey xaraam nañu wax naa la jigéen ñi nga xam ne tamit dagan nañu wax naa la ñu ñaaw ci aada te rafet lool ci sharia wax naa la ñu dagan ci nampale taxaraam lool tamit tabaarakallaahu ci askan ba boo demee di takkati dootoo ca amati euh, problème mag ñi daan tënkee ñu xaraam ñi ne boo ne mag rek xaraam na boo ne suñu rek dagan na boo ne suñuy baay ñoo bokk suñuy yaay ñoo bokk suñuy maam ñoo bokk dara nekkut ci waaye maag moom ñoo bokk boo ko xasee wax rek ñoo bokku yaay ñoo bokk yaay ñoo bokk baay wala ñoo bokk maam wala ñoo bokk nangam xéexée boo ko xasee wax boo ne maag rek ñaareel dafay xaraam suñ mag ñi dañ daan jàngale ba mën a jàngal ku jàngut bu fa bàyyee ko ku dem di jàngale ji di xeete mu des nag bu la yàlla maye ay soxna te kuy ñaan na ñaan ay sokna waaye senn si njabar rek xewut fii bu xewee fii ci àdduna xewut àllaaxira xàllaa xiraa ka ca gën a néewi ay junney junney soxna lay am moo tax alquran da ko bañ ba nakiral ko ngir bëri ga wala hum fiha azwaajun mutaharatun la alquran wax ka ca gën a néewi soxna lu mu néew néew dana am juróom-ñetti junne ci ñi ñu tuddee ne ay jeeg lañ ñeenti junne ci ñi ñu tuddee ne ay xuru ayni lañ te ay ay ay jànq lañ ci waxin waaye ñoom ñëpp ci waxin la waaye ñëpp jànq la ñuy doon fa euh, inna anshanahuna inshaan fa jaalnahuna abukaaran uruban atraban la alquran wax euh, su ko defee kenn ku ci nekk ci fanweeri atam ak ñett lay toll ñenn ñene déedéet ci fukki at ak ñeent rek lay toll ala kulli haal nag jigéeni xuuru ay ne nga am lu mat téeméeri junney soxna xam nga kon loola bëri na moo tax kon jéem koo file baax na waaye yàlla ni mu baaxee ni mu bëree yërmande ni mu tabee mu may la ñeenti place oto bi yaatu lool nga jël benn place ba rekk duy sa essence bi rek su ko defee bàyyi ñetti place ya kenn tooguñ ca am na ñooy lor yàlla lu tax mu def ko xam na ko société boo mën a dem ci àdduna bi rek jigéen ñaa ëpp góor ña bu kenn ku ci nekk jëlee kenn dana bëri ñu amul jëk ñoo amul jëkkër moo tax mu bëri léegi ba gars yi commencé jël benn ba léegi léeg nga gis jigéen ko xam na ñeent fukki at mos a dégg nga gis koo xam ne juróom fukki at mos a dégg alxayri boroom ñetti place ya te joxe wuñ seen place rek ñoo ko waral waaye nag su fekkoon ne kenn ku ki nekk góorgóorlu nga farlu ba yàlla may la nga am ñeent su boobaa kon nag taxawaalu gu bari géeg ñàkk jëkkër géeg dana wàññeeku fokk ñu yërëm maanaam jigéen ñi su ko defee kon nag loolu jar na bàyyi xel waaye seen si njabar rek nag a xiwut xal laqira de xiwut xal jana ku fa dem ay jabar yu bëree bëree baree bëri ngay am ñenn ña koy lim sax dañ ne dañoo xëppal rek waaye ala kulli haal alquran moom limut ko dafa ne walahum fi as walahum fi azwaajun mutaharatun nakkiral ko jabar yu baree bëri la wax lu bëri nag ca yàlla kenn xamul ni mu su boobaa nag kon nañ ci bàyyi xel waaye nag bala nga koo dem di joxe sa ñaari place yi wala ngay joxe ñetteelu place ba ak ñeenteel ba na fekk ñetti maa yi dajee ci yow bu ñetti maa yi dajeewul ci yow nag da ngaa loru xemal ci senn si njabar ah ñetti maa ya mooy na nga ko man physiquement ñaareel bi nang nga ko man moralement ñetteel bi nang nga ko man ci tuuti xaalis ma waaye ñetti maa yi bu dajeewul nag ah Ah, fa in kuntum am na bam ne fankihu ma taaba lakum min annisaayi masna wa sulaasa wa rubaa wa in xiftum fa wahida fa wahida googu nag da ngaa loru kon xemal ci benn xam seen si njabar tamit du gàcca bu la ko kenn xasee ku la ko bëgg a xas ne ko ah, ki ñi meññ ñun ñëpp nag di suñu maam aadama benn soxna la amoon benn soxna rek la ko yàlla limal muy sayyidatuna Hawa yàlla mooma amoon nag kartan nam génnee benn soxna ca faaram ga gu moy ga amoon nag kartan génnee beneen soxna ca faara ndeyjooram ga mu nekk góor ak ñaari si njabar waaye benn soxna la ko yàlla waxal ne ko uskun anta wa zawjukal janna inna hadha aduwu laka wa li zawjika fala yuxrijannakuma min al jannati fa tashqa kon benn soxna la amoon demeet bu fekkee jël boo yoree ñaari soxna timit tabaarakallaahu bu la kenn xas baax na yonentu yàlla noox ñu ne ñaari soxna la amoon kenn ka gëm ko kenn ka gëmut ko moom dafa mujj alku ak doomam ja di kanaan soo yoree ñett ba tey baax na ñii lim dañ ne yonentu yàlla ibrahima ñaari soxna la amoon euh, ñetti soxna la amoon ku mel ni tamit yonentu yàlla yaquba ñu ngi koy limal ñetti soxna su yooyee su la yàlla dimbee nag danga nga góorgóorlu am ñeent nag ah foofa nag la xaalis bi am foofa tamit la soxna yi am moom kay boo nekkee benn soxna waxoon naa la ko di dix franc ngay peese soo góorgóorloo ba am ñaar cent ñaari zéro ak benn soo góorgóorloo ba am ñett mille franc nga ñetti zéro la maanaam ak benn un toujours un bu moom du soppeeku jëkkër benn rek lay doon waaye zéro ba mu mën naa dolleeku mooy soxna yi mën nañoo dolleeku soo góorgóorloo na gën a takk sa fir yu baa am ñeent. waaw góor yaay ki gën a nekk jàmbaar su boobaa nag yow am nga euh, ñeenti zéro la ak benn un kooku mooy dix mille francs kon nag nañ góor góorgóorlu bu baax a baax a baax ngir yërëm jigéen ñi nekk ci gannaaw ñoo xam ne dégg guñ alxayri te ñi ngi ko ñàkk déggee ci place yi nga desel te joxewuloo ko kon nag yéen ñi dese ay place na ngeen ci góor góorgóorlu joxe ko yàlla may na la am nga kër gi yaatu na waaye waaye place yi nga dese joxe ko Euh, yàlla dana la jox wërsëg waaye bu fi nekk di ragal naan fu ma ku ma koy mën a yoree ku ma koy nangam ak nangam yàlla nee na in xiftum aylat al maanaam bu ngeen ah, fa sawfa yuxnikum laa min fadli in xiftum aylatan fa sawfa yuxnikum laa min fadli su ngeen ragalee ñàkk rek yàlla dana leen xoomalal loolu ma ngi ci suratul nuur kon nag euh, euh, te góorgóorlu leen ca bu baax a baax a baax jigéen ñi tamit nañ yëg ne wujjeedu dara mooy bokk wërsëg rek Euh, booy wujjee wujjeexal ki sa jëkkër ci ne maay maa maay ki man ca moom ki def ndigal ya bàyyi tere ya maay ki koy gën a mën a toroxlul waaye wujjeewoo kay wujjeeg yow di ko tur ay asiba di ko def yu bon yooyu yëpp sa kaw dong lay këpp loola baaxut nañ ci bàyyi xel da nga wujjee ba def loola nit nga mujj dem fanaani ci kaso ba doon wujjeeg di seg sa jëkkër foo mujj perte nga dootoo xamati aye kon perte nga kon nag yooy yëpp nañ ko bàyyi xel l'islam santaane wut ko topp sa rek ba mu xëy dugal la kàmb gootul mën a génneeti kon loola dootu ko jarati nañ woo rek ci jongante ci def lu baax moo tax wujji garaawut mais wujjee moo bon lislaam bañut ko bañut ba bañut wujji mais lim bañ mooy wujjee difa ay concurrence yoo xam ne teguwut fenn li ci ëpp yàlla taxut kooku moom baaxut dañ ca góorgóorlu bu baax a baax a baax su defee tamit nag euh, benn góor mas na laaj mu tawalli shahraani boroom xam-xam bu mag la ne ko lan moo waral góor di jëkkër moom benn rekk lay doon jigéen moom mi jabar di nekk ñaar ñett ba ñeent aa mu delloo ko laaj ba ne ko dama lay laaj boo amoon ñeenti jëkkër sa doom juddu kan ngay wax ne moo jur baay ja kan moo ci baayam mu ne ko kon duma ko xam ndax am nga rapport ñeenti góor koy moomale sa doom ji mu ne ko nag li tax yàlla bañ jigéen di am ñaari jëkkër wala mu am jëkkër ak nekkaale ndax kat waaye si yow mi sa jëkkër ji buy kenn am ñeenti jabar doom gi judd nañ xam ne doomam la waaye ki soxna nangam la ko amee mu ne ko ñaareel ba sax bala maa sori yow mii di ma laaj ñaata nga ci sa jëkkër mu ne ko ñetteel laa mu tawalli saxdaan ne ko gërëmal lislaam première place ñëw na fees góor ñëpp takk benn bokkoo ci deuxième rang bi ñëw fees bokkoo ci yow kon bu troisième place amutoon doo am jëkkër gërëmal lislaam mi nga xam ne moo yoonal ñaari place ñetti place jëm ba ñeent kon nag yow euh, premier bi ñëw na fees bokkoo ci deuxième bi bokkoo ci bu troisième amutoon mbaa quatrième kon yow doo am place kon gërëmal lislaam ndaw sa jox ko la ko ne ko dëgg-dëgg lislaam mooy diine ju maandu kon lislaam luy lore nekkut ci luy lore amu ci la laa darara wara diraara mooy qaa'idaab usul ba kon yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel takk fit yi rek ci góor ñi dem takk ay soxna baax na ci lool euh, su ko defee tamit nag euh, tabaarakallaahu góor jigéen ñi tamit nañ takk seen fit yi lu ci wujjee gi wujj gi te bañ di wujjee wala booy wujjee ngay wujjeewoo ci concurrence def lu baax maa la gën a mën a def lu baax waaye bu leen wujjee ci defante lu bon loolu lépp ñàkk a dégg diine rek la euh, ñun tamit ay jullit lañ bu ñu tubaab ya yow boo fi royab tubaab tamit mënoo fee fexe ba sa yaram yu niroog mor a wam nga ne dégg naa ñoom benn jabar la ñu takk kon na ca xem man mën ngaa am ñaar ak ñett tamit loolu lislaam toggut la ko euh, ñi cay xam benn timit ca tubaab yaag la ca xew boo boo xasee euh, dee dootoo takkaat wala boo fasee doo takkaat la cay xew ku nee nga koy xam ko nit ki warta roy kum niroowu tëkk euh, ndax koo xam ne mënoo ko roy boo royee boo xasee di roy nit rek ka ngay roy doxagoo ko yow muy jug di ko roy tamit doxatoo sa bopp do doxagoo leneen tamit kon perte nga yow doxatoo sa bopp doxagoo ki ngay roy doxoo leneen kon nag nañu jël qaayday lislaam yi di ko appliquer di ca góorgóorlu ki yàlla dimbale tamit mu yor ay soxna ñaar la ñett la ñeent la na góorgóorlu maandu ki seen diggante maandu ga nag ci wàllu matière waaye duwul ci wàllu xol ci wàllu matière daal booy seddale nañ tollale ñoom ñëpp a ngi ndakaaru bul jël kii jox ko kër gu gën a yaatu bàyyi kee jox ko kër gu xat bul jël kile ni nga leen néegam bi ak ni nga defaree salam bi xuutee naag kële ke saalam ba buñ nekkee nag kii ngi ci àll bi kii mi ngi ci teeru bi kenn ku ci nekk lay yi ñu nga ca ak ca dëkkin nga defal ko ko waaye doo wax ne nag maa ngi Ndakaaru dama fiy tabax étage kee ma nga àll ba dama koy tabaxal étage kenn toggut la ko kenn ku ne lay aadaam rek ki nekk ndakaaru lii lekkam utal ko ko ka nekk fële ca àll ba lay lekkam nga jox ko ko loolu ba tey génn goo ci cadre wu maandu kon nag booy séddale tamit nañ tolloo tolloo ga mooy kenn ku ne li ko doy bu fi nekk am jabar joo xam ne dafa njool fukki mètre a koy jot ki ñeenti mètre nga ne kenn ku ne fukki mètre déedéet kenn ku ne lu ko jot rek kii dàll ya koy jot maanaam 41 lay sol kii 30 lay sol kon kenn ku ci nekk dàll ya ko jot rek waaye doo ñëw damaa bëgg a maandu na dàll ya tolloo na piis ya tolloo na nangam ya tolloo kenn santudu la ko kon nag maandu gi ci matière waaye nag qualité piis bi bi ngay jënd na nekk benn qualité bi comme ñoo bokk fu ñu nekk ñoo bokk fu ñu nekk waaye nag euh, quantité ba lañ cey jënd nag kenn ku ne la ko jot rek loolu lislaam wax ba kon lislaam diine maandu la buy ca ayaga timit kenn ku ci nekk la lislaam yoonal ci ak aye mooy guddi ak bëccëg muy benn fan ñoom fekkee ñoo bokk d'accord ne ñaari fan boo joxee kii ñaari fan joxal kële ñaar su fekkee ñoo bokk d'accord ne ñetti fan soo joxee kii ñett joxal kële ñett suñ bokkee d'accord ne ñeent wala juróom luñ ca d'accord rek joxel kii le nga jox ko lale su fekkee ab takkoo la te takkoo mooy koo xam ne dafa bàyyi dara ci xàqam yow nga bàyyi dara ci sa xàq lu ngeen juboo rek sa xàq moo doon mu ñëw say si xaqam moo doon mu nekk nga jox ko dépense ba du set moom tamit sa ah, sa xaqam moo doon moo doon togg xaqam moo doon muy aylanteeg soxna yi su fekkee ne nag moom say seetut toggatut kër ak boppam la nekk yaa fay aye ji loo jubook moom ca loola boo ne ko dimanche bu ne weekend bi laa fiy def ngeen d'accord ca l'islam d'accord na bu ne weer wu ne ñaari fan l'islam d'accord na yonentu yàlla Suleymaan bokk na ca yonentu ya amoon takkoo lam sartaalo nag moom muy Balqiis mooy weer wu ne ñetti fan la fay def su ñëwee door a continuer ci yeneen soxna ya kon takkoo daal mooy lu ngeen bokk takkoo ko ngeen d'accord ci lu ngeen ca juboo rek l'islam dana ca ànd ca wàllu woowa waaye tamit la ngeen ca juboo nag na nga fexe nga matal sarta yooya ñu bëri dañoo fa ne takkoo tamit du soxna loolu njuumte la mook soxna yëpp ñoo xem xàq soo dee dafa lay donn soo dee dafa lay ténji moom bu dee tamit da nga koy donn naa ñu fa du soxna mooy baat bi naf yu la takkoo mooy takkoo rek xam nga mooy takkoo xam nga dafa dàq kon takkoo moom tamit nag noo ko maasee tamit dafay indi leneen soo ne ah kon nag takkoo naa ko maas dàmm muy firi tongoo nga ne kon naa ko fataa xëcc ko muy tàggoo moom mbaal ñett yëpp noo ko maasee rek noonu lay demee boo ko bàyyi kenn mel takkoo mooy mooy tekki mooy tekki mu ne takkoo rek takkoo ko nga ne naa ko dàmm mooy maas muy tongoo nga ne naa ko fataa xëcc ko muy muy tàggoo waaye ànd ak loolu lépp nag soxna la xaq la am ci yow comme sa yeneen soxna yi amee xaq ci yow su boobaa kon dee ko jox ayeem ci la ngeen dëppoo soo dee dafa lay donnu tenji la moom bu dee da nga koy donnu ca lam bàyyi yëpp lislaam mi ngi koy wax kon yow mi yore soxna yi maandul ki seen diggante maandu ga nag ca wàllu matière booy séddale nañ tolloo nga nekk góor gu takkoo leen am leen séddoo leen bokk leen kaajoo leen góor gu maandu goo gis baatam ci leen la koy daanu moom moo daloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mosaana séddale ca digg ëtt ba ñëpp daje mu ne seddoo leen am leen bokk leen ñi bokk na too yemle képp mu ne yow yàlla li ma moom maandu naa ci li nga moom yàlla nga ma ko jéggal li yàlla moom nag mooy wàllu xol kim gën a jeng jëm ca mënoo ca dara waaye nag bu mu feeñ ci sa wax bu mu feeñ ci sa jëf bu mu feeñ sa jëflante soo ko defee yàlla fuddu sa ndigg looloo waral nag yàlla ne xol ba moomoo ko maa ko moom walan tastatiu an taadiloo bayna nisaay walaw xarastum waaye nag bu mu feeñ mooy falaa tamiloo kulal mayli fa tadaruha kal muallaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kaana gafuran rahiman kooku ma nga ca yi ayaab téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent wa in xiftum allaa taadiloo fa waaxida kooku mooy ci wàllu matière booy matière bi moom nañ bokk sédd booy séddale nañ tolloo suñ mën suñ nekkee benn place suñ nekkul benn place kenn ku ci nekk lay aadaam ca foofa nga defal ko ko mat sëkk su loola amut nag nga nekk ku jeng ci say aye nekk ku jeng ci sa wàllu matière bi ngay séddale su boobaa nag yonentu bi nee na bu yowmal qiyaamee boo dekkee da ngay paralysé sa genn wet gi dafay wàcc nga paralysé rek benn loxo ba dem tànk ba dem ngay cokor-cokori génn ci sa biir bàmmeel jëm ca péncam yàlla ma moo tax yonentu bi ne man kaanat lahu imraatani fa maala ila ihdahuma jaa yawma alqiyamati wa shiquhu mailun yonentu bee ko wax sallallahu alayhi hadis la boobu Abu Dawud solo na ko Tirmidhi yu solo na ko ak ku dul ñoom ñaar mel Nasaayi mu bokk ci hadis yi Abi Hurayra kon hadis bu kon loolu jar naa bàyyi xel te ku ne ku yori soxna maandu woo ci diggante boo ne weer yu feeñ na kenn du matoo maandu matoo matoo matoo matoo seede soo ne tamit weer wi feeñ na kenn du xori soo ne fekk naa diw muy moy yow matoo seede kenn du ko caw fekk naa diw mu sàcc alal kenn du dagg loxoom ndax yow kenn compté tut sa kàddu ci kaw suuf kuy dund nag te sa kàddu kenn compté tut ko dee nga ku ko wax diw a ah, cam xanaa ak ko wax ñëpp wala gannaaw kon dee nga loolu nag la ca gën a gaaw mooy ku yoree soxna te maandu woo ci seen diggante soo ko defee l'islam konteetut sa kàddu loo waxati dafay wax a cam ko du nitu dara kon ñi l'islam wax na cam du nitu dara bari nañ fi dee bari na fi ñoo xam ne tey yàlla may na leen i soxna ñi takk ay aawa yu yàgg xam ak ñoom fanweeri at ñeen fukki at wan leen gannaaw boo waxee ñu ne ay ko kay màgget na màgget mi kay xanaa bu màggetee kay màgget nga yow tamit di yàgg ngeen di su ko defee nag nga yoree seet jeng jëm ca moom aawa baak ña ca aju xamaltuñ ci yow dara loola lépp amatuñ ci yow dara am na ci ñoo xam ne joxatoo leen dépense da nga leen a dog dematoo ci ñoom xamatuñ loo nekkee loo am xamuñ loo nekk xamatuñ ko te bi ngay daanoo ka jug yaag ñoom la woon ba tey nga mën a taxaw di taxaw ak ñeneen ñoo xam ne fekkee wuñu woon lii bàyyi fa ñoo ku ko def yàlla fuddu sa ndigg jar naa bàyyi xel te ñàkk a maandu gi lépp bu yowmal xiyaamee bala ngaa jéggi siraat sa jabar dina taxaw nga taxaw loo ko ameel ci ay xàq ci ay aye amel ko ci àq ci ay dépense amel ko ci ay àq ci tàngal ay xolom lépp ñu jël ko ci aw saw hiw fayee ko ko bu hiw ya jeexee te jeexul ñu jël lu boni soxna sa këppal la ko nga mujj dem safara moom la yonent bi ne atadruuna mal mufallas looloo waral yàlla di wax ci alquran ne bu yowmal qiyaamee da nga gis góor gu gis jabaram rek fëx commencé daw da nga gis ku gis mbokkam fëx commencé daw danga gis ku gis yaayam wala baayam commencé daw ngir xàq ya yawma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abihi wa saaxibati wa banihi lu tax mu ne li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi kon loola jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax maandu ga war naa dem ba ci su fekkee ne tey da ngeen a aye gi li ngeen wax mooy kenn ku ne benn fan kon nag ku fanam ba faat boo ñëwee doo ko ko fay loolu mooy wax ko loolu moo tax ñu ne aye kenn du ko fay boo kasee faat yaa tukki woon fi ngay tukki kee waroon a aye kee war a aye nga ñëw tombee ki aye kon ko nga koy jox su ko defee ñee seen fan ya faat kenn du ko fayati waaye su fekkoon ne nag da ngeen a wax aye gi ci ay fan yéen a ko ca date ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ko amee loon benn mu des ñett soo ñëwee jox ko ñettam ya fooy dem door a dem koo amee loon ñaar ma fay ko ñaaram ya boo ñëwee doro dem waaye buñ ko bàyyee woon na ko lislaam waxee woon te duut ci ñun luñ juboo muy benn fan ku xas faat dootoo ko fayati lépp ci fuqaaw yi loolu lañ gëm soo demee bay tukki nag ngir ak maandu charia day wax ne tànnal sa tukki mii ki ca dëppook yow ki ko man da tukki ngir faju ji kuy faju day aajoo kuy yëkkatee ka tëral day aajoo kuy sanga ka may garab utal kon ku am doole nga yóbbu ko su ko defee tamit su fekkee fa nga jëm ñuy làkk français la wala anglais ki man loola dégg ko yóbbu ko ci ndax mu mën a médecin ya su fekkee ne nag li nga li nga li li ngay tukki di ko defi ñoom ñëpp ñu fi ne mën nañ ko ci kenn ku ne ni ko ni mu ko mënee ni la ko moromam manee ah ñaara fi sës dañ lay tànnaloo bu la neexee nga wantale ku bant badal nga ànd moom bu la neexee nga tànn ca kenn dem su su fekkee ne nag li gën a nag maandu comme ñëpp ko man tolloo ca wantaleel ku bant bi daal nga nga nga nga yóbbu ko su fekkee ne kii ko man kenn ko man ke ñoom tànnal ko ko man rek nga ànd ak dem ak moom loolu lislaam wax moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bu daan tukki tukki moo xam ne nii tukkeem aj la wala muy tukkeem euh, xare ji dafay dagale soxna yi wantale bant ba kum dal nga ànd moom ndax xam nga ne mm, dem Makka dafa neex ñëpp ko bëgg waaye dem xare ji tamit bakkan da koo sib koo tànn ne damay bëgg dem nañ dem ca xare ba mu ne xanaa dafa bëgg ma dee rek moo tax kii kon bii dafa nekk dansé bii dafa nekk xéewal moo tax bu daan ñaar ñii rek day wantale bu lu dul ñaar yi nag buy tukki day seet euh, fa muy tukki ka ko gën a man ca soxna ya mu ànd ca ak moom ca tukki moom ak kenn du yonantu bi sallallahu alayhi wasallam su ko defee boo demee ci ibnul qayyim dafa wax ne su fekkee danga tukki yàlla dogal bi ngay tukki da ngaa wantale woon wala ah kay sax wantale woo Euh, euh, su boobaa nag ayaya yi nga xam ne dafa dox ci diggante bi la lay wax nuñ koy war a faye Ibnul Qayyim dafa ne ñetti wax moo ci nekk ci borom xam-xam yi bu njëkk ba mooy ahaduha annahu laa laa yaqdi sawaun aqra am lam yaqra kooku la Abu Hanifa gëm ak Malik mu ne koo xam ne ngaa tukki bi ngay dem moo xam da ngaa wantale moo xam wantale wuloo bi nga ñëwee soxna yi nga fekk seen aye ga faat dootoo lañ ko fayal benn far ngeen juboo woon kii ñëw fekk fanam ba faat na kii fanam ba faat na kii fanam ba faat na ka nga fekk muy togg kooka rek moom moom moom ayega ñee faat nañ dootoo ko fayati moo xam bi ngay tukki nag da ngaa wantale mbaa wantale wuloo loolu mooy masabu Malik kooku mooy masabu Abu Hanifa su fekkee ne nag bi ngay dem di tukki wantale nga mbaa wantale woo ahlu zahir ñoom dañ ne ñeseen ayega faat soo ñëwee da nga koy fay moo tax mu ne wasaani annahu yaqdi lil bawaqi aqraa am lam yaqra wa hada mazhabu ahli zahir ahlu zahir dañ ne daal soo ñëwee nga seen fan ya faat da leen koy fay moo xam bi ngay dem da ngaa wantale moo xamantale woo ñetteeli wax ja nag mooy su fekkee bi ngay dem da wantale ña seen fay ay faat doo ko fay su fekkee wantale woo eh, ñi seen ay faat da nga koy fay wa thalithu in aqraa lam yaqdi wa in lam yaqra qada wa hadha qawlu ahmad wa shafii rahimahullah kon in lam yuqri su fekkee wantalihut kada wa in aqra lam yaqdi kooku mooy masabu imam ahmad mooy masabu imaamu shafii ci wàllu fay aye soxna si nga xam ne nag moom nga àndoon ak tukki ngeen def fa weer mbaa fukki fan soo ñëwee rek moom ki sës ki ki war a aye gi tegu ci moom rek moo cay tegu ba mu xeg si haat ci moom moom tamit nag kenn du ko wax ne ko dangay toog ba weer wi mat comme yaa àndoon nag moom bu weer wi matee ci ngay door a commencé waat aye déedéet di ba mu demee nag ànd ak moom moo xenu woon coono ya ca toggal ga ca fóot ma ca lañ ca war a def lépp kon tamit lépp lu cay njariñ moo ko yóbbuwaale waaye nag su fekkee dañ ko gën a bëggoon a fayloo kon danañ ko lor te lislaam du diiney lor du diiney loru laa darara wala diraara fan yam fa def lu mu yàgg-yàgg su ñëwee moom kenn du ko ko fayeeku waaye nag bu ñib see rek nañ seet ka tegu ca moom nga continuer ca ñëw ba ba ngay xeg seexaatee ci moom mu xem léegi ñëpp nag loolu la lislaam wax ci chariatul islaamiya loolu la atte ci lislaam dafa may tamit bu yàlla mayee nga takk soxna soxna ñaar la benn muy jeeg wala muy jànq su fekkee jeeg la nga takk ko bees charia may na la nga sax fa ñetti fan wëlis yeneen soxna yi boo ñëwee ñetti fan ya nag bu jeexee rek commencé waatal rang ba nga continuer waat su fekkee par benn fan la boo ñëwee jox ko benn fan ci deuxième tour ba su fekkee par ñaari fan la boo ñëwee jox ko ñaari fan ci deuxième ba la ngeen juboo su fekkee nag ki nga takk jànq la charia may na la nga sax fa juróom-ñaari fan bu juróom-ñaari fan ya matee nag nga commencé waat tour ba nga ñëw soo ñëwee la ngeen juboo woon buy benn fan kenn ku ne benn buy ñaar kenn ku ne ñaar lii la lislaam santaane ci soxna yi ñu war koo bàyyi xel kon nag loolu leer na li ci des nag mooy rek nag topp sa bakkan ak nangoo jeng waaye dafa am góor ñoo xam ne dañoo jeng jeng ba buñ solee mbaxana sax mu jeng jëmee benn côté dara nga ca mënul am ñoo xam ne dañoo jengatuñ mais dañuy jangi jangi dañoo jeng jeng ba bu ñuy dox da ngay jangi jangi bëgg a daanu loola lépp na ku koy def daanoo goo kenn du jëndee sa àdduna sa làqira kenn du jëndee leer ci lëndëm ma Sëriñ Tuubaa dafa daan wax ne man baaxa nuuran bi du jaa fa sa yandamu képp ku jëndee leer ci lëndëm da nga ko réccu yowmal qiyaam te li gën a métti jaamu yàlla ba sonn jël sa jaamu yàlla gile fayee ko keneen ci ak xaqam pertement la yal yàlla boole musal ñu ci kon nag tey suñ darsu bi moo doon jigéen ñi nga xam ne fukk ñaar lañ takk leen ñaaw lool ci aada te rafet lool ci sharia ak juróom-ñeent jigéen ñi nga xam ne takk leen xaraam na ci askan waaye dagan na ci nàmpaale gannaaw si ga timit wàllu ayayeeg wujjiya ak wàllu wujjiyaak yaatu dënn ya tabaarakallaahu ak la caaju tey loolu mu doon eh, darsu bi boo ma toppee suba rek ci waxtu wi incha allahu rabbi maa sof ak yow li ma sosoon nag yow ci wàllu woowu yëpp in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu lay unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu